Selling you to put me down, owe it I'm alright, I'm it Yes, I stumble and they do it I'm alright, they do it I'm alright, when they do it I'm alright In the contact, selling your top for they sa bët màcc waxi kese jur be zéro avancement tali bon école yi bon teg ci dëkk bi feebar taa changement la ñu bëgg warul yem ci tool bi wax jëndal sa carte votel Assane si laaj ñu tam assemblée dëkk votel Assane si doo gi gaar paataan naa ko seen moo ne tey ba dugg fa ay bu dugg fa waaye na xeebaay bi tax na ndox ak courant amu fa Touba la te jeunesse bi ni Thank you. fekk nañ kontaan nañ bu baax baax baax baax sant nañ leen tamit ci seen teewaay yéen ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi sant ñëpp ginnaaw bi ma sante suñu borom sant yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam sant suma ñaari honorable yii nga xam ne ñoo waral lépp ay jii nii muy Assane Mao Sylla ak soxna Fenda Konté ñun ay Baay Faal rek lañ Baay Faal nag dóor waar rek la xam ak sa jaajëf amul leneen ñu am objectif objectif bi nak moy dem assemblée non seulement yóbbu fa ñaar ni mais aussi yóbbu fa suñu président Abdoulaye Sila. mo ngi Ndakaaru Njaay mais mën nañ wax né li yépp mom moko waral parce que ci kudd yu njëkk yi lañ sété muy troisième jour bi ñu commencé élection campagne bi le président Abdoulaye Sila ñëw ñu terre si ko fii ci Diourbel mu def fi lo xamante ni ñepp tek nañ ci seen bët ñepp bëgg ci mais aussi mu jox ñu courage ngir ñu mëna avancer dem ci kanam boobu ak léegi ñoo ngi dem découragé wuñu benn yoon ndax kin fi bàyyi mët kuñ fi war a bàyyi muy Assane Maao Sylla kon merci beaucoup honorable xam nga dañ naan peccum xale yi nañ toog bàyyi seen coow yi dañ ne yaay jaa téye ci mbagg ya kon duma lim sama compté bañ a lim suñu wajur yi ak suñu frère yi suñu sœur yi na suñu papa ji ak suñu grand frère bi su ñewul woon sax danañ ko tudd ki jambar la jàmbaaru njaaree ma ngi ni jogal ci kaw taxaw mo ngi ni mom mom mom nijaayu président Abdoulaye silala mais bàyyiwu ko benn yoon taxawu na ko bépp taxawaay fépp ci kanam ci ginnaaw gauche ak droite suñ ñëwoon gis ko mu mel neneen kon ñun duñu def dara dañuy toog fu ñuy toog parce que kenn joxuñu dara ñun li ñu war a liggéey liggéeyal nañ ko suñu bopp démb tey soogay ñëw dañuy wone exemple à Diourbel

tey suba gannaaw suba dimanche ñu dem élection wóor na yàlla suñu borom liñ fi liggéey à Diourbel muy ABS amul benn parti bu ko liggéey nañ leen waxante dëgg fépp lañ dem fépp lañ dem fépp lañ dugg ruq ak moo tax ñu ñëw indil leen leen représenté leen fii à Grand Diourbel ñëpp fi teew ñi wax ak ñi waxul ay représentant yu mët représentant fépp foo xalaat ci jumbel rek nit jóge na fa ak mbooloo moom ñëw teewe fi kon ñëpp ñu fi teew maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax wax ji duma ko guddal ay cant ak ay ngërëm mais li gën am solo mooy bu ñu parce que bu ñu suñu bopp lañu war ñun te jëluñu kenn joxuñu kenn xaalis waaye nag wan nañ leen ne ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ te lii exemple la dara ñëwagul gis nga buñ nekkee député yéen di ngeen di tegal seen bopp seen bët di xam ne ay liggéeykat ñoo fi ne bëgg a jëmale kanam Diourbel waxuma nag man ñëpp xamee nañ ma grand Diourbel ak Ndayane waaye njaareem yëpp dañ koo war a gañe kon gars yi am leen fulla am leen fayda am leen ngor bu le 17 jotee yéen ñëpp ngeen ngeen dem voté ji ngeen voteel Assane aussi Sylla ak Penda parce que mérité nañ victoire bi à Diourbel jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu kenn nekk sa tur ak jégalu bu baax nag si guddee bi di leen wax ne kontaan nañ bu baax a baax maa ngi jégalu nag sama dëkkandoo yi bu baax a baax ci pétard yi xam ne bëgg ambiance rek ak bëgg lu neex rek moo ñu jàpp rek mais maa ngi koy jégalu bu baax a baax maa ngi nuyu nag Assane Mawo Sylla bu baax a baax di nuyu président si la di nuyu suñu directeur de campagne muy Khadim Kane di nuyu kilifa yi di toog yëpp. ak suñu honorable yi jógee ba Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di contane sen téway di nuyu lay Soukeye tamit diko wax né jambar nga bu baaxa baax comme ni ñu xadim jambar la lay Soukeye jambar la. di nuyu nak sama jeunesse bi yépp yépp yépp yépp di leen wax contane na bu baaxa baax fi bu amé fi taxaw fi yeen yeen yeen ci taxaw bu baax pour jappalé ma yeen yeen ma dooleel yeen yeen ma yokku fi ndax amaanaa man kese ak Assane Mawa si la kese du dem mais ay jàmbaar dëgg ngeen dëgg ngeen maa ngi kontaan bu baax si waa Njaareem di leen wax ne awma seen fay yàlla mi am seen fay yal leen yàlla fay te yal na leen fay fay victoire bu le 17 novembre rek incha allahu rabi ndax xam naa ne loolu rek mooy seen fay yéen le 17 rek ngeen soxla victoire rek ngeen soxla di xamal ne waa ABS ànd beesal Sénégal dañu bëgg ku ñu jàppale ci njaareem te li tax ñu bëgg ku ñu jàppale ci njaareem mooy dañu bëgg ànd ak njaareem ci liggéey bi di leen xamal ne yéen waa njaareem tëpp leen seen i bët bu baax ngeen xool te xam ne nag yàlla andil na leen ku leen war a defaral njaareem andil na leen ku a njaareem andil na leen ku leen yóbbul seen kàddu ci assemblée nationale pour njaareem soppeeku. nee nañ nag bu yàlla tàccoo da ngay fecc boo feccul nag lu am yaa ko teg sa bopp di leen xamal ne yàlla da leen fee andil ABS ànd beesal Sénégal pour mu jàppale leen ngeen ànd ak moom bokk liggéey bi ndax ABS ku ne xam ne ne parfakal la macha allah am na ay projet yu baax pour jeunesse bi jug na pour jàppale jeunesse su njaareem pour wàllum liggéey jug na pour jàppale jeunesse u njaareem ci ñi nga xamante ne dañoo toog liggéey ci dara dara dara am toog di dawal Jakarta ak jigéen ñi nga xamante ne dañu ci marché bi suñu marché bi doy na waar ndax ñëppay jaay marché bi ñëppay jaay te bu ñëpp jaay kan mooy jënd kon jot na pour ñu yeewu changé suñu njaareem bii te kenn waru koo changé ku dul ñun doomi njaareem di leen xamal ne waa njaareem Assane Mawo Sylla ak Penda Konté na pour ànd ak yéen ci liggéey bi kon jug takku ba dëgër bu la 17 novembre ngeen de voté ji incha allahu rabi ñu am ndam di feet feete ko incha allahu rabi di leen xamal ne nag yi fi nekkoon te doy waar loolu bari na waaye foog naa ne ñi mu yëpp sa takk nañ seen i xàmmee nañ bu baax bi mooy bii te dañ na lu la fang kenn du ko jeex bu baax baangi ni moy jant bi jant baangi ni do bëgg bu la 17 novembre ngeen dem voté ji inshallah rabbi di len wax kontaan na bu baaxa baax. jërëjëf honorable. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. أعوذ بالله Assalamualaikum. Assalamualaikum. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم di nuyu yeen

Monsieur chérif nous jour, ñu nous nous ko mbooloo nous nous ma les Grand nous ma Je remercier particulièrement particulièrement sama frère sama doomu Khadim Kane Khadim je ak histoire bu et ko borom rabbi particulièrement sama sœur sama xarit soxna Ndeye Soukeye sila. il faut que ma tudd ko particulièrement Ndeye Soukeye Jere Sylla sila gis naa ni nga téye sama mbag gisaa ko bu baax yal na ko suñu borom fay toogal la di remercier ah waaw <laughs> suñu yaay yi fi toog yëpp su ma mais di remercier man sama yaayu bob. muy Fatou Fatou di sama mag sama yaay la di remercier ñi fi toog ñëpp ñi jóge fu sori mais aussi bébé son Oumou ñoom aw ñi fi nekk ñëpp di remercier particulièrement un DJ professeur d'anglais cher bi ñu ngi ziar bu baax DJ je remercie l'association des Allo Dakar Je remercie remercie ce tonton le euh, papa Sarlawa, lay wax grand Tata. mais je beral loxo aussi particulièrement sama sama shérif sama bras gauche c'est Cheikh Tayrou Aïdara. dama vous ngeen ovationnel ma ko bu baax avant dernier remerciement sans la peine de compter les dem Jigen ju mën Penda souffle le souffle de bonheur la fi ci ci koñ bi dama koy fàttali particulièrement yorul salon école de coiffure la yore ndax xalé buy traîner jangulo wala defuloo dara te xam nañ danger bi mu nekk ci xalé bu ndaw bu jigen da lay xëc jàng la liggéey xëcc la conseil la ñun ñi nek ay chamignam lu mu metti metti lu mu guddi guddi boo dugg see

xam naa ne ñoom daw nañ ci caravane bi mais dama bëgg remercier particulièrement la team la direction de campagne les jeunes ceux qui sont en jaune en noir ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di leen ñaanal li ñu sumbu yàlla ngeen bokk ci ñi ci njëkk a jëriñoo tey duma gudd parce que mën naa jàpp ne visa fi nekk yëpp ngañ xam naa leen te li ma daan wax dégg nañ ko man Assane Maou Sylla politique ma man politique ma dama bëgg a bind histoire fii yeneen bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon ak yéefar yi mam borom Touba jaar fa ak Touba bi ba nit ñi di ko scandé ba tey man dama bëgg le 17 novembre ma tijji page page bu bees ñu ubbi page bu bees ma jël sama jëm ji may ko njaareem bind histoire bu bees histoire la bëgg a bind dafa jot ñu jagalaat ndiaré dafa jot ñu jagalaat ndiaré dafa jot ñu jagalaat ndiaré dañu togon suñu ruq jang nañ fi waron jangé liggé nañ fi waron waroon gorgolu nañ suñu diiné fi ñu waroon fi ci waroon gorgolu ñu yaakaar ak président Abdoulaye Sylla que ni sëriñ bi téye kurusam footballeur bi téye balam basketteur bi téye balam ki nekk ci àll bi téye li ñuy wax illeeram maçon bi téye ñu dañuy yaakaaroon ne dinañ bay suñu ci dëkk bi entreprise am suñu société groupe la 15 entreprises. di embaucher ñaari di fay ba 1 milliard ñu ne doy liñ ci góorgóorlu social dina tax ñu gën a contribuer suñu gox góor góorgóorlu ci ba tabax xabru sëñ Fallou tabax xabru sëñ Sidi Maxtaar defat ñaari sooro Masaalikul Jinaan naboot gi nawet bi su ñëwee particulièrement Touba ren moo nekkoon juróom-ñetteelu at ñu ne lépp lu waa Paleen bale nañ ko ton yi defaraat tali yi defaraat yoon yi ñu ne doyul su gàmm gi ñëwee Diourbel Thiénaba Kaolack Ndiassane

mais ñu joxoon ñu nañu malgré lool lan ngeen di defal njaareem su ko par exemple ay sila déggé xolam day juk man sama xol day juk ndax njaareem lu mu neew neew neew par année et contre par exemple ay sila ak man mi ak ku melni jëm xadim mi di dinañ ci duggal lu toll ak genn wàllu milliard dina dugg bir njaareem ndax lu mu neew neew neew am nañ au moins 300 nit yu joggé njaareem di liggéey ECOTRA ñi ngi fiy may ay bourse ñi ngi fiy fecc ay nit ñi ngi fiy duggal ay xéwal ñi ngi mëne ay action sociale yu doy waar di finance ay jigéen mais loolu dañ nañu feeñu ñu ne ñu joxoñ naan ñu lan ngeen defal njaareem loolu moo di suñu xol ba président Abdoulaye Sylla ne à partir du 17 novembre Assane dellul njaareem dellul fi nga juddoo yaroo fa màggee fa nga jagalaat njaareem man loolu mooy son mission dañoo bëgg jagalaat njaareem y wax souvent que député du président de la république du maire le député de ay ponk doy war yo été députés ci euh, journalistes donc je vous di engagement à partir de maintenant le 17 novembre nekk député ou sans député man je sama en train de

ci à travers le plein emploi de bi le meilleur équipe de foot meilleure équipe de basket am ay set mini club salle de cinéma am piscine olympique am cité ouvrière avons le plein emploi albi Diagon, nous ñu le doon jox jiw di semence Diko, di le jëndaat di ko jëndaat ci donc offre bi may le li may ci moi je bu ñu ma wóoloo def ma député dañuy mettre en place li wax gouvernance parlementaire Madame njaareem gouvernement lañ gouvernance parlementaire député bi may à peine de compter. dañuy tabb ci douze communes commune où nekk dañ fay assistant parlementaire Madame day mel ni ay ministre ba pare corps de métier yëpp ñu teg fa tamit ay assistant métier parlementaire Madame boo jëlee allo Dakar yi day am fa organisation bi suñ mettre en place daf ñuy permettre ñu le premier bi nga la constitution bi député député la constitution bi bi ci député premier gaynde premier activiste di premier faalu lepp luy ci bi luy ci doon ci bi député am prérogative taxaw ci dox ci bi ni rajo bi tam kenn mënu fa jaar di yàq organu taxi yi oto yi moto yi nee nañ borom jakartaamaa ni seen faar yépp démonté wu na tali marché Ndoumbé Diop bi ni mu mel suñu yaay di fa jaar ak jakarta ak wëtiir ak saret bu nawet bi ñëw kenn doot fa mën a jaar ak yeneen yoon yu jagatu yoon yooyu normalement député li ko constitution bi dénk mooy mu dem constaté ko su ko constaté dem poñe ji maire bi parce que ci responsabilité am la su ko maire bi mënul mu dem poñe ji préfet ak gouverneur suñ ko mënul ndax loolu ñàkk xam la ak ñàkk xarañu maire yi ak autorités yi fi nekk ak député yi fi nekkoon mais entreprise bu liggéey ci gox day am li ñuy wax engagement RSE responsabilité sociétale d' entreprise su poñee maire préfet gouverneur mënuñu ci dara mën na dem poñe ji entreprise yi liggéey ci gox bi yëpp ne leen yoon moo ne leen jéew ngeen ngeen jàppale ñu ñu jagal gox bi suñ ko mënul mu dem seeti ministre tutelle bi su ko ministre bi tutelle mënul mu bàyyi ba session assemblée am mu jël parole fëgg ci table wax len ni Arend ndjay Ndella la mel wax len ni Tali marché Ndoumbé Diop bi mel suñ ko mënul mu yëkkati passeport biñ ko jox ak as tuut salaire si koy jox organiser wu dem à l'étranger wuti fay partenaire député rek lañu may ci suñu organisation administrative lu mel non ñaarelu ponku bi biñu dégg député moy lepp luy loi fépp fuñu faram-fàccee loi ci Gomis député bi dafa wara tok et ñun amna ci ay xalaat yu bari bi ñuy def C50 bi identifier nañ au moins une vingtaine de points yo xamné ay projet de loi lay doon bi ci njëkk biñu bëgg a song mooy li ñuy wax des bâtiments rouges ci école yi dafa am lu triste lo xamné scandale qui ci suñu gox yi scandale bu doy waar la suñu gox yi

su l'a leen laajoon tey jii kan ci seen école moom toilette bu baax kenn du ci yëkkati loxo donc xale yi duñ am fu ñu tuure ndox et en plus suñu gox yi amuñu poste de santé fii ñu taxaw ni Grand Diourbel amu poste de santé tripano fi nekk te dañ fa xajal rek quelques quelques places Grand Diourbel amul poste de santé moo tax loi bi ñuy song Gomis sama premier engagement mooy bépp école Sénégal primaire secondaire lycée dañ fay tabax benn bâtiment bu mag bu rose boo xam ne dañ koy tuddee li ñuy wax goxu jigéen ñi foofu dañ fay defar ay toilettes yu baax ak fu xale yi mën a loxo ba pare ñu teg fa li wax benn bàjjanu daara du daara nettoyer toilettes presque chaque une heure de temps comme ni koy defee ci réew tubaab bi ba pare ñu ñu fa ay serviettes hygiéniques ak lu bari ndax parfois dañuy dund lu doy waar ci biir kër yi duñ ko ci biir kër gi prof ko directeur mais bàjjanu daara boobu xëy na dinañu mën waxtaan ak man loi boobu laa bëgg njëkk a

ay préfabriqué yo xamné tay tey bu ñu bëggoon def fii Yoli ben poste de santé ci dir bu ndaw lu ñu doon tabaxé 6 mois wala 1 an ci méthode classique bi bu boba ci ñaar wala ñetti wër dinañ ko mëna tabax. donc lool loi lañ ko bëgg def bo xamné impérativement gox bu atteindre ben niveau de population rek dañ ko wara def poste de santé. ñettel bi parce que bari na mais dama ko ci toftal moy li wax intégration des handicapés dans le milieu du travail bi ñi def tourner C50 bi dañu constater né suñu mbokk dañ au bord de la route xale bu juddu rek gis say wajur wala ko gis ci meddi mu am way am di ngay ne kon yow comme am nga lago rek yow jang da nga a sa loxo. amna ben loi bu def loi sur égalité des chances ñu la handicapé ben carte ñun dañu bëgg plus loin dañu bëgg entreprise bu nekk bo atteindre salariés rek da nga wara jël handicapé six handicapés.

ci loxo wa jaaré damay terminer ci à peu près une trentaine de lois yu ñu bëgg votélu voté bi ci mujj moy li ñuy wax la préférence locale préférence locale bokkul ak préférence nationale. préférence nationale suñu digënté la entre société touba bi ak société nationale mais préférence locale day nekk loi qui xamné imposée. dama ko bëgg a tëgg 90 de budget force force société locale Rwanda Maroc même Mauritanie qui commencé à ko ay Cameroun ñom ñep non lañu ñu soqale seen économie moy ci gox bi su mairie bi 10 milliards de budget d'investissement. force 9 milliards d'entrepreneurs entrepreneur locaux la koy jox Nous day changé lu bari parce que si suñu défé la règle des tiers avons 30 de marge bu 9 milliards de bu Nous ko bayé ci dëkk bi buñu dépenser ci salaire rek ak matériaux 3 milliards pour xamné day des ci

premier ministre Sonko premier ministre Ousmane Sonko fi mu toll nii li ëpp li ko ci may mooy dafa nekkoon assemblée nationale moom kese ci parti Pastef ba mu fay dugg sax matalu loon dañ ko ci bëmaxoon en plus fort res mais bi mu fa nekkee mel ne benn ñebbe ci biir cin bu taw a ñor sonal huit huit gouvernement président Macky Sall may leen woon dara lu ñu defoon mu siiwal ko dëgg la du dëgg loolu diggante ma suñu borom ñun xamuñu ci dara

de sorte que plus le gouvernement Sonko def dinañ ko càmbar dinañ ko siiwal parce que yoon nañu ko may bi ci mujj mooy quatrième bi moy député dafa wara top li wax orientation politique publique orientation politique publique nak moy so admis di ministre yëpp dañuy dem à l'assemblée di présenter sen budget et ci présentation budget bobu ci présentation budget euh député Ndiarème dafa wara top impérativement su fa photo ministre des transports dina ñëw foofu ne am naa milliards de budget fanweeri tali laa ci war a def lim de yi mu ko war a def yëpp tëb et bu boobaa njaareem dina mel ni muy continuer di mel. donc ñeenti ponk yooyu ak engagement en tant que député monsieur Gomis ñu leen bëgg a teg ci loxo waa